léegi nag taxliili mooy laa ilaha laa mu ne njëriñu turu laa ilaha illallah allati tur yi nga xam ne fil quran ñoorot ci biir téere bii di alquran alasi muy aji mag waxiya ñoom booy xool lim bi lépp sappoon juróom-ñaar la wa salaasuna ak fanweer laayatan ci ay laaye léegi fanweeri laaye ak juróom-ñaar yoo xam ne lépp dañoo indi laa ilaha illa huwa mu nekk ci biir alquran léegi dafa dajale lépp ngir lan bëgg na ñëpp jëriñu ci nit ñëpp jot ñu ci léegi nag mu lay waxal njëriñ li ak boo ko defee nii boo ko defee nii ak lan la lay jural moo tax mu commencé koy lim mu ne waman xara aha ku jàng xasida gi fii nahaari ci biir bëccëg nga toog ba añ rek dal dallu jàng ko lam yi mu doo faatu mukk te garante la fi saalikal yem yi ci boobule bis bis boobu moom dootu faatu xaw ma beneen waaye bis boobu moom doo ci faatu waman xalaxaa ku ko takk la yadxulu du ko dugg mukk alhadidu weñ nit bu amoon fetal wala jaasit maanaam lii gars yi di wax pul pul rek la ci jubloo maanaam ku ko xas takk kookee li ñuy wax ween kenn mënu koo jam ku la bëggoon a lor itam du ko man ngir lan xasida gi moo la aar laa yadxulu du ko dugg mukk alxadiidu weñ fii jasadi ci biit yaramam moo xam jaasit ak lu mën a doon rek du ko dugg ci yaramam waman ak koo xam ne daxaa ñaan na bihaa ci xasida gi istajaaba dana nangu allahu yàlla daxawatoo ñaanam ji képp koo xam ne toog nga ba bëccëg war ak wala heure neex nga jàng xasida gi jublu ci rek ñaan say soxla moo xam soxla bu mën a doon boo ko ñaan rek suñu borom nangul la ci sansa wa man xalliqaha képp koo xam ne takkuna na ko fi bayt yi ci biir néegam laa tax taxriquhu du ko lakk mukk moom néeba anaaru safara abadan ci luy sax bu faw ku ko takk ci biir néegam safara du ko mën a lakk mukk xam nga ne day di nga gis néega xëdd yi am koo xam ne day xëdd defar ay ngooñam lu ne mu def ko safara bee ko fee ak calluwe rek ànd ak safara wala kenn taal ko rek yépp lakk xasida gi nag nee na ku ko takk ci biit néegam nee na néeg ba du lakk mukk fa tabarakallahu wa man xaliqaa ku ko takkal xalal tif li gune gu ndaw muy ab xale laa yemootu du dee moom xale bi mukk xataa yem loxo lu mooy dafa kalefee képp koo xam ne xale judd na nga bindi xasida gi dal di koy takkal sa gune ak xale bu mën a doon xale boobu du faatu ci waxtu gune mukk lu mooy dafa kalefe wa man xaliqaa koo xam ne ba tey moom it wa man xaliqaa koo xam ne takk na ko takkal na ko xalaa maridin koo xam ne aji tawat xam ne aji tawat la safaahu dana ko saafara allahu yàlla taxala yàlla mi aji kawe koo xam ne dañoo fekk mu tawat ñi bind ba noppi xëwlu ko takkal ko ko yalla dana ko saafara ca saasa mu dal di keneen ba man xaliqaa koo xam ne takk na ko yëkkoonu dana nekk moom koo ke takk ko xad ni yéen di aji doylu mooy am alal géejal dootul soxlaal kenn nga xam ne fu mu toll rek day géejal alal lu mu bëgg rek da koy am kon ku ko takk moom xasidi gi koy joxe ba man xaliqaa ku ko takkal xalaa xabdin koo xam ne ab jaam la yëkkoonu dana nekk moom jaam ba xoran di aji gore jaam bu mu mën a doon boo tekkee xasida gi boo bindee xasida gi ba noppi takkal ko ko dana nekk di gor suñu borom dana ko goreel tabaraka wa taala mu am liberté am lépp wa man daama koo xam ne saxal na xalaa xiree ataa ci ak jànga moom xasida gi aw xasalaha wala ak sangoo fii jasidi ci biir yaramam aw xaliqaha wala mu takk ko xalaa sadri ci dënnam yëkkuunu dana nekk sultaanan di borom pouvoir mooy nit ku am doole mu ne képp koo xam ne saxal na ko di ko jàng wala benn nga bind ko sangoo ko ci sa jëmm yaram wala nga bind ko teg ko ci sa dënn danga nga nekk borom poir waaye wa yuyu boo dana ko sopp anaasu nit ñi nit ñëpp lay bëgg nit ñëpp ñëpp ku la da lay bëgg ngir lan xasidi gi nga teg ko ba noppi xasidi gi nga bind ba noppi nga sangoo ko wala nga naan wala nga bind ko teg ko ci sa dënn bi ñëpp ñëpp ñëpp dañ lay bëgg nit ñëpp dañ lay bëgg nga xam ne amul yéeféer ba amul jullit ba moom noonu rek la ko waxee waaw wa yuhibboo dana ko sopp ana su nit ki waman xalixaa koo xam ne takk na ko fii masjidihi ci biir jàkk yëkkoonu dana nekk fii jàkk jooju jamaatan ay mbooloo kësirat yu bëri koo xam ne dafa tabax jumaa wala jàkk bëgg mbooloo ñëw fa ci biir dëkk ba jëlal di gi nga bind ko ba noppi takk ko ci buntu jàkk ji ci kaw fa tabaarakallahu jàkk ji dana bëri mbooloo dana am mbooloo ñu fi julli si kon nag xasidi gi xasidi gu am doole la wa man dafa naa koo xam ne sul na ko fii baladin ci ab ci biit ab dëkk aw fii yi wala ci biit kër aw fii bayti wala ci biir néeg laa yéen si lu du wàcc fii ci moom jay suñ ab lël ab lël boo xam ne dañoo takkaayu bee ko fenn ñëw di fitnal ay jullit wala ku mën a doon walaa yi duroo te du ko lor say un walaa yi duroo du ko lor say un dara loo xam ne mufsidun aj yàq la kon nga gis ne lu am solo la mu ne koo xam ne sul na ko ci ko lor say un walaa ay duroo du ko lor say un dara loo xam ne mufsidun ay yàq la kon nga gis ne lu am solo la mu ne koo xam ne suul na ko ci biir dëkk nga jëm rek suul ko ci biir dëkk nii koo xam ne na ko na ko sul ci biir dëkk nii rek ak ku mën a doon ak ku mën a koo xam ne na ko suul ci biir dëkk nii rek ak lu mu mën a doon rek fa tabaarakallaahu nee ne boo ko sulee ci kër wala ci sa dëkk wala ci sa kër maanaam xare du fi wàcc maanaam loolu boo xam ne dafa jóg di fitnaal ay jullit lu mel ni tey lu demee ni la xaw fee ca wetu Makka muy euh, Palestine nga xam ne dañ leen di not di rey seen doom yi lu ne ñi di leen ko def ngir lan lu ñuy tuub rek dugg ci lislaam koo xam ne def na ko ci dëkk yu mel noonu wala ci kër wala ci néeg lël yooyu lu ñu mën a sonnaat lu ñuy mën a mën a lore yow dootuñ la mënal dara moo tax mu ne wa man dafa naa ku ko sol fii baldeen ci biir dëkk aw fii daari wala ci biir kër aw fii bayte wala ci biir néeg laayante lu du wàcc fii ci moom jéy sun ab lëlu xare boo xam ne walaay duruxoo te du lor sayun dara loo xam ne mufsidun aji yàq la lépp lu yàq rek dugg ci biir dëkk bi di fitnaal ay jullit kooku moom mucc wet yow waman koo xam ne dara boxoo teg na ko maatan ku faatu sarihan des na ko jéggal ci lu gaaw boo gisee mu ne dara boxoo xaagi mooy xaagu ñaw xaa u xayb mooy xam nga ku dee buñ koy wax dañ naan dara boxoo nga xam ne xaw xaaw bi la nga xam ne kenn gisatut ko moo tax ma ne waman dara boxoo koo xam ne teg na ko teg na ko jël ko rek jëmmi xasida gi tekk ko faatu tekk koo xam ne waman dara boo koo xam ne jël na ko tekk koo xam ne maata faatu na sariyaan maanaam dañ fa xasafee njéggal la mu ne sariyaan des na ko jéggal lu gaaw bi hurmati haasil asmaa yi ci barkeeb ci xormaa yii tur waman daama koo xam ne saxal na ko moom xasida gi xalaa xiraati ci ak njàngam lam yan sa du fàtte mu ko xal boo xolom ba xan sikri laay wulis tudd yàlla koo xam ne saxoon na di jàng xasida gi xolom fu mu toll day tudd yàlla du fàtte yàlla bu dut fàtte yàlla xol boobu moo gën xol bu moom kon nag xol boobu xol boo xam ne mi ngi jàng xasida gi heure bu ne rawatina bëccëg ak guddi ak boo ko mën a jàng rek waaye nag nee na lan yeen su du fàtte mu ko xal boo xolam ba xam sikirilaay walis tudd yàlla taxalaa yàlla mi aji kay wa xam ne jàng na ko laylan ci guddi aw naxaaran wala ci bëccëg lam yaqrufu du ko jege mu ko saytaanu sayaatiinu ci bis boobee lépp saytaane da koy daw da koy daw comme ñuy xaj dawee fa tabarakallahu képp ko jàng ci ab guddi wala bëccëg na la wóor na la bis bi yëpp am nga kaaraange bis bu ñëw nga def ko noonu bis bu ñëw nga def ko noonu kon seytaane du la mos a jëkk seytaane day mujj sax naagu ci yow ndax dootul man ci yow dara ba man xaraa ku ko jàng leneen ci guddi aw naxaran wala bëccëg lam yàqre boo du ko jege mukk a seytaan seytaane insha allah kon mbokk yi xasida gu ñu leen indiloon a ngi nii ak ay njëriñam mu doon xasida gu am solo xasida la goo xam ne lépp loo ci ñaan suñu borom dala ko nangul ak li ñu nettali ci biir yëpp kon nag ñoo ngi ñaan suñu borom defal nu dégg ak topp te mu jëriñ ñëpp fa tabarakallah ñëpp jot ci mën ci jëriñu yàlla na nu yàlla nangul nu ko subhanaka laa ilma lanaa illaa maa allamtanaa innaka antal alimul hakim wa salaamun ala man ittaba al huda